هذا taalibe yi. waaw ñu jóge Touba. ñu di siyaar ci bisu Cheikh mu Sërëm bi ak suñ Cheikh Sërëm lama ma wax fee rek yaa fi Cheikh mu Sërëm suñ Cheikh noo ngi lay siyaar ci bis bi di rafetlu taxawaay bi te it uh, boot nga uh, taalibe yi mm. góor ak jigéen mag ak ndaw nga leen. dimbali nga leen suturaal nga leen lii nag seen siyaar ci bis bi ñoo ko joxe noonu di ñaanit ñaanal mbooloo mi ak mboolem dëkkandoo yeeg taalibe yëpp sunu borom faj suñuy ci saayir ak ci baatin ba lii ñu bu dee na nu mën a andiwaat lu kopp ñaaram yéene nañ ko am nañ bëgg-bëggam li ñu mën a dimbali daal mooy ci sëriñ bi nga ñaananu ci sëriñ bi ci barkeb Cheikh Moussa ak daraje Cheikh Isa ak sëñ bi li mu am ci Cheikh am ko ci Cheikh Moustapha mhm. sunu borom yokk nu nu ñi njaboot gi ku fi teew ko ne mhm. ak foo man di jóge sunu borom musal ci ndog te doole say xéewal ban teewaat ko nag de yaa na nga fi yàgg ci sunu kanam ci barke baax na dañu ni nga delloo tool sëriñ Bara Sourang mi moo jëloon ci turu mbooloo mi li jot li seenub liggéey noo leen di delloo nit am nuyoo di leen wax ne liggéey bi na mutta bañ a wax ndax wax dëgg yàlla um, bett na ci dayo bi mu am ñi xaay ni bokkuñ ci dayo te ëllëgee ñoo xam ne jëf joo xaay ni luñ koy def ngir jëm suñu boroom mutta nëbbu ndax nekk na deux cent soixante dix mille francs la kon nag loolu dafa nekk juróom fukki junni ak yaakaar naa ñeent kon loolu jooju jëf jamono yi ngeen ko ngeen fi jëbalee euh, fi Tuubaa ak léegi bis bii di bis bi sëñ Mat Suna ak sëñ Cheikh Suna ngeen ñëw yembalaat fi lu mu yéen a góom ko seqal ci góor ak jigéen maa nga ndaw teg ko suñuy loxo noo ngi ñaan yàlla sëriñ Tuubaa nangu ji seen jëf yëpp war ko sëriñ Tuubaa bàyyi leen fi mën na ngeen si déwén kenn bañ a manqué fas nañu yéene te ni ngeen ko indee teg ko suñu loxo fas ko delloo ko ci suñu borom ngir da ko jëf nga jëm yàlla yonent bi sëriñ Tuubaa fas naa yéen dinaa leen ko ca dellool kon nag noo ngi leen di sant di leen gërëm tey ñaan yàlla nañ fi teewaat si nëgëni si déwén kenn ku ne la nga ci defan xamal ko ko sa bopp wala nga yéene woon ko te la nga bëggoon àggoo ca ñoo ngi ñaan bis bu nu ko àggee tey di ko def kenn ku ne la nga la nga defoon mu jàpp ni la nga mën ko def na nga ko bëggee képp koo xaajee langa nga woon àgg dese naa ba àgg na ko bëggee itam saa ba doon defal kàttan goo xëy dina ko dina ko mën a def jëf yi mat na sëkk jëf suñu xol sedd na noo leen di ñaanal ci barke euh, Cheikh Issa Diène ci barke Cheikh Mat mu Diène mi ko wóotoon ci barakaatu Cheikh Mat Sourang mi xaay moo doon liggéeyal ak gana moom ak ci barke suñu kilifa ga di sëñ Cheikh Sourang mi nga xaay moo tax ngeen di liggéey seen liggéey bi yàlla na bokk ci liggéey yi ñu nangu te it foog nañ dina ci bokk ndax da ngeen ko def ngeen ngistal newu ci Euh, yàlla rek a tax ngeen def ko te yàlla ku ko lebal benn bu lay fayal fukk la lay fayal te noonu la ñuy mbaadoo la gaa waa ndax wala yuddaa fi na man yasaaw la wax ne boo ko lebalee benn da koy pëlal nu koy ne fayal ko yàlla na ngeen yàlla na ngeen bokk ci jëf jooju ci barke Serigne Touba kon jërë ngeen jëf sunu xol sedd na noo ngi ñaan nii nu fi teewe yàlla nañ fi teewaat nëgën si déwén kenn bañ a manqué ak ña des ci kër ga te kenn ko la nga bëggan ci xéewal saa borom dolli leen ko ci barke Cheikh Sa barke Cheikh Amadou Sow barke Sëñ bi jërë ngeen jëf barke Sëriñ Tuubaa bi salaam iyyaka na'budu wa salaam amin bismillahi rahmani rahim alimna salaka sadraka wa dahna anka wisraka la shay'an qadra sadraka wa rafa'na laka zikraka fa inna ma'a al-usri yusra inna ma'a al-usri yusra fa iza faragta fansab ila rabbika farghab walaahu yarsaxu man yasaau bi xale fataahu wahaabu yaa rasaaxu yaa maaliku liftar soxna bi kun laana iftaleen muxtaari saydina abwaaba xayrin tajur risqa ay baana barke Sëriñ Tuubaa عليك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 asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen mbokki jullit yi fi teew mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak ci santam di leen baalaax tey di leen baalaax di ñaan képp ko fi teew yàlla na sëriñ Tuubaa faj sa aajo saayir baatin sëriñ bi kàddu yi du gudd comme ni ñu ko sàkkoo woon rek at mu jot ñu xëyee ñëw laaj ci ndigal dem ci waa ñi fas yéene dox ci ndigal loolu bu ñu noppee itam mbooloo mépp maase yembaat ci sa kanam di sàkku ñaan tey toog dégluwaat ndigal comme ni ko Cheikh Maodo Moustapha daan waxee rek nii ab taalibe bu jëfee ndigal ba noppi toogaat déglu ndigal diggante bi mu jëfee ndigal laak bi muy xaar ndigal li dañ ko fiy fay yoolub kuy jëf ndigal noone rek la ñu koy sàkkoo saa su nekk ñu sax ñu toog ci sa kanam di ñëkkati kàddu ndax ab taalibe kat bu ñëwee nii sama liggéey ngi nii rek daa war a noppi kàddu ya fay jub yépp ci sëriñ bi la war a bàyyi ko su ñu ngi lay ñaanal suñu borom bàyyi la fi guddal saw fan lool ba li nga yéenee liggéeyal si amat su nga def ko ni mu la soobee ni nga ko waxee rek rek kàddu yi kon dañu koy jox sëriñ Abdou Sourang al ibn bu ko defee li fi jàllale lépp incha allah dina ko jàllale ci turu sëñ Abdou Sourang ñuy ñaan bu baax ñëpp maase teewlu ànd akuk dal ñu maase teewlu taataan kàddu yi sëriñ bi bismillah bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa mbokki jullit yi mbokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu turu sunu kilifa sunu waajur sunu wasila a Seex Abdu Surang di sàkku ci ñëpp ñu ñaanal ko sunu borom guddal aw fanam te wéral ko bali mu sàkku liggéeyal Seex Murtala ci kër Sëñ Isaa sunu borom defal ko kartan akuk man ci ndigalam kàdduy jaajëf ak kàdduy soññee kàdduy jaajëf yi mooy dafa leen a woo dafa leen a woo am bis mu woo leen ngeen bàyyi seen yitt yëpp bàyyi seeni soxla ñëw fekk si ko fii jël seen alal def ko ci bis ba bis bi jàkk borom dolli ko fay yàggalaat bu baax ba bu weeru déwénee su rëng ñu fekkaat la fi ak sa kartan nga bañ a tële dara te nga ñaanal dong yëpp ndax lu fi am ñooma kon yéen taalibe yi sunu kilifa Cheikh Abdou Soro nee na mu ngi leen di nuyu ci kenn ku ne ci turam ak santam góor ak jigéen mag ak ndaw ak foo mën a bàyyi ko rawatina njaboot gi nga xam ne. mooy njaboot si Ahmadou Dame Sourang gi nga xam ne moo la bokkal kër gi njaboot googu nag bu ma ko tuddee ay rakkam ay doomam muy sëti si Ahmadou Sourang yi ñooñu ñooy njiit li taalibe yi topp ci sëriñ bi nee na xolam sedd na xelam dal na ndax woote yomb na waaye ñu wuy si moo jafe kon da ngeen a bàyyi seen yitte yépp jaayante ngir jëmmi sëriñ bi jël seen alal def ko ci bis bi ba mu jag kon mënul lu teew fi seen kanam ñaanal leen sunu borom faj sunu aajo ñun ñëpp ñu delluwaat ba déwén teewaay gii ñu teew ci kanamam itam nañ bàyyi xel ci ni sañ Baari Jenn ci boppam mi mu doon liggéeyal fanweeri at ak nangam Cheikh Ibrahima Fall mos na ko wax ne ko mët Lamin mu ne ko Mbàkke mu ne ko boo amee sab taalibe su amee na ñëw su amul na ñëw nee ba di yërmaande yi nga koy xool mu ngi mel ni xaw muy nàmpal doomam nee amul wenn waaye bu xoolee doom ji doom ji regg kon sëriñ bi njaboot gaa ngi nii ñaanal leen lu sagal kër gi rek lañ bëgg lu ko jëmmal rek lañ bëgg bu ñu sañal fu këru kilifa yi egg dana fa yegg ci sayir baatin moom jëlee nañ ko ndax am na ko ba noppi ñu dellu ci juróom bis bi nga xam ne moo waral bis bi muy jëmm ji nga xam ni dafa bàyyi woon léppam jaay léppam jaay ak taalibeem lépp jaay ak njureelem lépp jënde ak taalibe muy sunu maam si Ahmad Daam Surang moom ne dafa kanamam war na leen wax xolam bu sedd war na leen gërëm war na leen jox ndigal ngeen wéy waat ci digal loola kon ànd leen ko dal ba liñ leen bëgg a wax ñu wax leen ko yoonu murit nag lii baaxoo ndaje murit yuuxoo mooy yoon wa waaye li gën a yor mooy wéy ndigal bàyyi tere mu wax ne bi nga xamee ne wax na ko loolu ne ko matsuram yi fa sa yokkoon xal sat naa nekk loolu moo waral jitaay bii tey ñooñee ko doon wax am na ñu ma ci xam dem naa ci seeni kër defal nañ ma teraanga lu ne di xoolal nañ ma ko te sëñ ñu ko a bañ te sëñ Isaac waxante loolu wér na sëñ Mat Sura gàddaay fekk Seex Mat Sura fekk sëñ Isaac jenn ci xabaan lii ma leen di leeral sëñ Omar Tandi ne moom a ko nettali nee na dafa gàddaay dafa ñëw mbooloo mi bari ñett téeméeri takk der ak nangam ci la fekk daara ci la fekk ci daara ji jamono yooyu sëñ Gañ Tandi sëñ Mortala sëñ Ibrahima Mbengue ak fere yi lay sëñ saa woo ni ko ngañ mu ne ko jenn mu ne ko ngeen aman ko dox sama diggante yéen de dana baax lu ma leen wax mu ñëw wax leen ko ndax galfan naa ci wàllu àdduna ne sëñ ngañ tànni ne moo njëkk jóg ni ko Ahmadou Sourang mi de doy nañu boo ñu boole moom lu mu ñu wax dinañ ko def kon loolee mu téye loolee doon jëwriñ ji téye ko bu wér ñett téeméeri takk ak nangam wax nañ ni sëñ Issa musta wàcce benn donga donga mu musa bu liggéey ba amatal sëñ mat sura ngay dem ci moom ni ko diw de mat ab liggéey mat na mu ne nañ ko woo nañ ko woo ñaanal ko waaye musta woo kenn ñaanal ko ñetti téeméeri takk yooyu ak nangam sëñ Baari jenn kenn ci lal muy taawub sëñ Issa kere ba ko sëriñ bi yëppoo mu dal jàng boole ko sëñ Mbàkke sëñ ba siiru jenn am xelam xaw a lënt neexul dafa dellu ci waajuram ni ko man ne damaa bëgg a yàlla sëñ saa ni ko liggéeyal yàlla de métti na baa man nga ko mu ne ko bu ko sama ruux xattanee mën naa ko mu ne ko liggéeyal yàlla doo lekk doo lekk lu neex doo lekk ba rek doo sol set te doo naan ba man ne mu ne ko man naa ko loolu bay mbay jimbang moo ma ko li ne mu ne ko mën naa ko mu jàpp ji loxo bi yër ko sëñ Tuubaa ci mbakki bari bi mu demee wax loolu da ko wax ne ko andoon mu téereb yàlla bi nee ma ko jàng na ba té jeex a téere yàlla suuf bi ne ma ne ko akasa li nga des boole moom boole ko Cheikh Mat Surang ci gàttal rek xat na dafa barab bi dafa tàng bi mu waxee mu ne ko soo demee jëmm ji nañ ko liggéeyloo bu ëllëgee lu mu jëm dina ko man kon damay jaaxal ni damay damay am lu ma jaaxal bu ñu dee nett li histoire sëñ Baara te duñu ci boole martaba sëñ Cheikh Mat Surang daf may jaaxal ndax bu ñu naan sëñ Issa Cheikh sëñ Baara dafa toog sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa xelli kaasu kaasu attaay jox ko nekk am dem yow mi di murit loolu day yomb la ko ko may jëf moo ko la tax mu am ko sëñ Mat Suran moo ko may sëñ Mat Suran la ko sëñ boole lan ba mu téye ko bu wér ñetti at yu manqué tuuti defar ko néeg bu néeg bu rafet jébbal ko ko Cheikh Mat Suran ko néeg bi ni ma cee dugg xanaa dama koy jébbal sëñ Issa ba ñu ko simpee jox ko ko ci këru xaban gi sëriñ bi ne ana ko liggéey li ñu ne ko sëñ Baara mu ne mat sa mat Lamine Mobile sëñ doon na ko wolu ab liggéey mat na foofu nañ ko jàngat bu baax a baax a baax a baax a baax sëriñ bi dellu ko jëlaat yëpp war ko sëriñ tubaa sëriñ Touba bi ko jubee dafa ngëpp ci loxo bi ñetti yoon ne ko man Lamine mu ne ko mbàkk mu ko man Lamine mu ne ko mbàkk mu ko Lamine yàlla gërëm na la yonent bi gërëm na la gërëm naa la sabaay isa jenn gërëm na la ba koo gërëm mel ne maa ko gërëm daal xelli kaasu attaay jox ko ni ko am ma Lamine yow mi di jëf moo ko ko may teyal leen tiwo bi balaa nit si kon tey leen bu baax balaa dem ci kaw sëñ kon loolu loolu la leen bëgg a leeralal kon nañu maa seen tàllal loxo yi sëriñ bi ñaan ñu teewaat ko weer yu déwén sëñ bi suran dana wax naan nañ dellu dégluwaat ndigal kon mbooloo mi nañ delluwaat déglu jiwaat ndigal te ñaanal sëriñ bi seexab bu suran sunu borom yal na la fi bàyyi yal na nga fi yàgg te ñu bokk ko ak mbooleem njaboot gi nga xam ne ñoo njaboot Cheikh Mat Sourang ak donga yeeg ñëpp fu waay jóge sëriñ bi wax na la ngërëm sant na la gërëm na la waxtu wee xat asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ngeen na nangu ñaan ne xam na dem na buñ demee ba mu jeex ne ku mel ni Moustapha Diène dana yeggale li ci des ne mu ngi sant daayira yi nga xam ne ñoom lañu woon ñoom ñëpp ñu bàyyi seen yitte. ñoom ñëpp ñu bàyyi seen yitte. wuy si ci woote bi ñu leen woon. wuy si ñu woote bi ñu leen woon. ñu matale li tax ñu doon woo. nee ñu matale li tax ñoo leen doon woo. ñu taxawu liggéey bi ci fànn yu ne. ñu taxawu liggéey bi ci fànn bu ne. ànd koog waa daayira yi ne ci dëkk bi. ànd koog waa daayira bi nekk ci dëkk bi. nee kon dina jaadu. ñu jottali cant goo xam ni. ñu jottali cant goo xam ni. day bàyyi ko ci ñun ñu day bàyyi ko ci ñun ñu ngi koy waxe woon. di sàkk woon si yéen def si def ko ci daayira bi. di sàkku gi nga xam ne sax doon na ko sàkk ngir ngeen def ko ci dayre bi. fekk si daayira bi. fekk si daayira maajéeri bi. ñu ànd yor liggéey bi. ñu ànd yor liggéey bi. ñu def ko na mu waree. ñu def ko na mu waree. kon nañ leen di sant leen gërëm. nee kon mu ngi leen di sant di leen gërëm. nee bu ko defee bu noppee daañu leen topp xam nañu nu ñu toll woon. nee bu ko defee daañu leen topp xam nañ nu ñu toll woon. te ci dolli ko nag rek la. nee li ci dolli ko ne ak cant rek la. ndax Cheikh Mat Sourang. ndax Cheikh Mat Sourang. ak doomam ji tedd jë. ak doomam ji tedd jë sëñ Cheikh. ñoo waral bis bii. nee ñoo waral bis bii. fa tabaarakallaa. fa tabaarakallaa. sëñ Mat Sourang moom la ma amoon lépp. mu ngi ko jëlee woon ci sëñ Issa. nee mu ngi ko jëlee woon ci sëñ Issa. waaye ñun de li ñu mën a seere. moom mii de na lu ñu moom li ñu mën a seere. ñun ñii di ay doomam. ñoom ñii di ay doomam. ak lenn ci njabootam. ak lenn ci njabootam. lu ñu am ak lu ñu mën. nee lu ñu am lu ñu mën nee ci sëñ Cheikh Sourang lañ ko jëlee nee ak cantam da ko ci digganteem ak kilifaam googu. amin amin amin amin amin amin آمين آمين ما لكم جل ربي بما يصلحون أزال فالفجاء بجاه أبدل من لله خلجاء ربي بما يصلحون أزال فالفجاء بسم الله الرحمن الرحيم mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi nuyu ñëpp di leen sant di leen balaax di leen ko baal ñaan sunu borom yàlla na boole jégal ñu ñëpp. gannaaw loolu ñu ngi sant mboole mbokki taalibe yi ci sunu turu jëriñ ak turu daayira Dialibatoul Masala ci jiital sunu jëriñ Mamour Niang ñu ngi sant mboole koo xam ne membre la ci. daayira jaalibatul masara wa daafatul madara moo ñu nekk ci biirum réew ak ñi nekk ci biirum réew di leen sant di leen jaajëfal ci liggéey bu sell bu tedd bi nga xam ni ànd nañ ko waa dëkk bi ci bisub Cheikh Ahmadou Dame Sorong bi nga xam ne moom lañ doon màggal fii ci njenne ci ndigalul kilifaam ci ndigalul kilifa gi ndigalul xalifa xalifa bi di Cheikh Abdou Sourang ñaanal ko mu yàgg fi lool te ànd ko wér moom mbooleem njabootu Cheikh Ahmadou Dame Sourang gépp gannaaw loolu nag ñu ngi sant mboolem daayira yi nga xam ni ñoo teewoon ci bis bi ànd ak liggéey bi ak daayira Jaalibatul Nasaara wa Daafirul Maraaxib mboolem daayira yi nga xam nekk nañ ci gox bi ku ci nekk ñëw nga ci bis bi joxe ci sa yéene ne la ko sëriñ bi sant woon nga defe ko noonu ba defe ko noo xam ni kawe na njortam sëriñ bi nee na mi ngi ñaanal ñëpp ku ci nekk tànk yi ngi fi ñëwoon ah, yàlla na ko sunu boroom def muy tànki xéewal ak tànki jàmm may la gudd fan ak wér ah bu bu déwénee ñu man ko fekk waa ci jàmm te ku ci ñëw ku nekk rek saa booy dellu yaa di suñu borom defal la nga yëg sa bopp ak yokkute ba ba faw gannaaw loolu ñu ngi sant daayira kër gu mag ci njiital sëriñ Cheikh Fall Diagne sëriñ bi sant sëriñ bi sant na leen lool gërëm na leen waaw ah, nee na mi ngi leen di ñaanal ci barke bis bi ak ci barke sëriñ bi waaw ah, lépp lu ngeen ci seen ci liggéey bi yàlla ngeen ci gis bu gën a kawe seen yor di sant daara Kutufa ah, ci njiital sëriñ Bañu Seen sëriñ bi sant na la gërëm na la ngeen ñaanal gudd fan ak wér aji faj ak man bu yokk lu ngeen man déw ren bu déwéneen ngeen man lu ko sant daayira Cambeen ci njiital sëriñ Alpha Pen sëriñ bi nee na gis na yéene yi ak pas-pas bi ak bëgg yi nee na ñu leen di ñaanal ci barkeb borom jenn mi ngeen xam ne moo tax ngeen di jëf ak barkeb Cheikh Massour mi ngeen xam ne mi tax mi tax ngeen di jëf suñu borom defal leen lépp lu ngeen ci yéene ngeen daja ci lu gën kawe seen jot di sant mboolem ñi nga xam ni ñoo ñoo jox yi nga xam ne ñoo fasantoo ak njëne lagan waaw di sant waa daara Sidi daaru Rahman Thieleka daaru suran daaru salaam naar ga duudi buy meew ñu leen di sant baax ci njiital sëriñ Ngoy Ka sëriñ bi nee na daal mi ngi sant ñépp ñépp ñoo xam ni ku ci nekk teewoon nga ci bis bi wala nga amoon yéenay teew ci teewoo sëriñ bi nee na sant na leen gërëm na leen ndax ku ci nekk nee ba nga déggee jotaay bi loo jàppoon da nga koo bàyyi daal di koy wusi ngir yàlla ak jëmi sëriñ Tuubaa ak jëmi si Isaa ak jëmi si Ahmadu Daam sëriñ nga xam ne moom moo tax muy liggéey gannaaw loolu waa daayira daayira Jaalibatul Masala ñu am sant yoo xam ne ñoo koy jëmale ci suñu kilifa gu baax gi muy Serigne Abdou Sow te ñaan mboolem koo xam ni yaa ngi ci dëkk bi wala ngay dégg rajo bi wala ngay gis image bi nga ñaanal ko mu yàgg ci lool te ànd ak wér suñu borom bàyyee ko ci suñu kanam ba naa li nga xam ni waa juróom wa naaloon na ko mu àggalee ko ni mu ko bëggee ci barkab sëriñ bi barkab Cheikh Issa ci barkab borom jenne gannaaw dawalaat jëmale ko ci mbokki taalibe yi nga xam ne am na liggéey boo xam ne sequ nañ ko ak ñoom ci wàccaayu bis bi maanaam ñu ngi leen ci sant di leen ci gërëm mboolem fu waaye man di nekk bi bis bi ñëwee ah niñ ko waroon a waajale waajale nañ ko ci ñi nga xam ni moom la ñuy waajale bis bu ji baax mooy waajal ko ci jàngu alxuraan ak durs ay xasida te ku ci nekk fu waaye man di nekk maanaam def nga ci sa kem kartan ba nga xam ne bis bi bi mu ñëwee kat am nañ ci yóbbul boo xam ne ci alxuraan ak xasida lu ci nekk rek daanaka maanaam doy na sëkk kon loola ñu ngi leen ci sant di leen ci gërëm di leen ci ñaanal ci barkab alxuraan ak ci barkab xas xasaayit lépp loo xam ne waaye séentu ko ci wala mu yóotu ko ci yàlla na ko jariñoo ci barke borom Tuubaa ak xasida bi ñu ngi ci ñaanal ñëpp ñëpp ñëpp xalangu dañu suuf te ku ku lim da nga juum baa nga am koo fàtte kon loolu moo tax rek ñu yemale foofu ñu gàddu ginnaaw loolu nag maa ngi ciy jotale samay kàddu bokk yoo xam ni maa ngi koy jéglu di ko sant suñu mbokki taal bi nga xam ne ñoo bàyyi ko ba Touba di suñuy wólëre di suñu lépp mooy waa Istikhama suñu jiital Serigne Moustapha Ndiaye ñu ngi leen di sant di leen gërëm ah, ci teewaay bi mooy Serigne Abdou Baaxe ja ak Serigne ah, Ma Dieng ñu ngi leen di sant ci ci ci ci liggéey bi ak ci taxawaay bi ak jàppandal bi ndax biñ leen waxee bis kat maanaam jàmp na ci waxin waaye nag ñoom dañ ko lépp def ko seen mbiri bopp oyofee ko xam ne ñoom it li leen tax a jóg mooy liggéeyal sëriñ bi ak yaatal liggéeyal sëriñ bi moom mën a daj àdduna kàpp ndax sëriñ Tuubaa bàyyil fenn loolu moo leen tax a jóg ñu ngi leen di ñaar ci barkeb yàlla ak barkeb bis bi ak barkeb sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moo tax ñuy liggéey fépp foo xam ne bëgg na seen site bi àgg fa ñu àgg fu a kaw fu seen jot ci barke borom Tuubaa li sant suñuy mbokki taalibe yoo xam ne baaxoo nañ di ak ànd ak ñun liggéey bi mooy waa Ndiéné TV ñoom it ku demee ni ko ñoom daan naan ànd ak ñun liggéey bi waaye yàlla dogal ñu daan ñëw ren ñu daan ñëw ren ñëw ni te loolu suñu ngant loo xam ne lu ngi ñaan lépp lu leen gàllankooroon bu ëllëgee suñu borom tegg ñoom loolu ba bëggee teew teew nañ ngi sant mbokki bi yëpp ki jéeglu ci kàddu yi jërëjëf euh, bokki julli bi bokki taal bi yi nga xamante ni bi yéen a ngi doon teelu ci bis bi nga xamante ni bi ñu ngi ci doon màggal Serigne Ahmed Dame Souran di ko ci fàttaliku ànd kook njaboot gi yëpp euh, naka noonu fii rek la ñuy yem di leen sant bu baax di ñaan képp koo xamante ni bi teewoon na ci bis bi yàlla suñu borom faj say aajo di ñaan tamit Serigne Abdou Souran mi nga xamante ni mooy xalifa Serigne Ahmed daam Souran suñu boroom yàggal ko fi mu yàgg taxawee bis bi ànd ko waa kër Cheikh Issa Diène yëpp di sant bi ñëpp di gërëm ñëpp di jaajëfal bu baax Serigne Abdou Baaxe bi nga xamante ne moo jëli woon bis bi di ko sant di ko gërëm féete ci wàllu technique bi Serigne Moustapha Ndiaye muy kilifa ak istixaama ñoo ngi koy sant moom di ko gërëm ak bépp personnel u Istikhama point tv ki nekkoon ci micro bi doon leen ko euh, commentéral seen mbokk seen xarit Muridullahi Mbay wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.